والعرب بألسنها فتعاونت أمم على تنظيمها بحوارها ببنائها المختار نجانا لنتكو بموتخ ريسبكت آر ريسبكت ساجيسو يالل واي فولغاريتي دفا ري آر فولغاريتي دفا ري آر ba ñu sax nit ku reeloo nit ñi parce que l'islam maye na ko mais à une condition mu jël rek 10 pour cent istijmaamu nafs bi cheyin min al batil kooku imaam Abu Darda moo xare ba ñu may ko lislaam bi lislaam may na la nga foye wax ba ñëpp ree mais bu mu ëpp dix pour cent inni la astajimu nafsi bi cheyin min albatil li yakuna aqwalaha ala alxaq yonent bi sax daan na tooñ nit ñëpp ree waaye tooñam dafa tax nit ñëpp dof parce que benn njaboot romb na ko mu ni ko yaa saaxibal udunayn yow borom ñaari nopp yi tax semaine ba kenn tudd ci sa doom ku sa doom romb rek nga ni ko yaa saaxibal udunayn yow borom ñaari nopp yi wante lislaam maye na ko mais mu bañ a ëpp mu bañ a ëpp kooku bu ñu ko dee askanale ci ci ci ci euh, Blaise Pascal c'est que dañu xamul ni ba ko imam Abu Darda ñaanee ba ñu may ko ko pour lislaam kenn xamul kañ la kenn xamul kañ la woon dëgg la nag tubaab yi ñoo jàngal sunu doom yi waaw li li li li ñuy xam ci euh, Blaise Pascal duñ ko mën a xam ci Abu Darda saa yi faut le dire maa ngi am sama benn sët bu nekk ci daayira bi keroog dafa ñëw waxal ma euh, benn euh, artiste bu nekk États-Unis tante ya am a bàjjan yi yëpp wax na ma ko mu ne ko waaw noppi nga mu ne waaw ma ne ko wax ma sa bàjjan yi ca ndar ma ko wax ma nag sa bajjen ya ca ndar yëpp ak sa tante yi mu ne yaa ci di ma xool ma ni ko lii nag àdduna bu tukki la <laughs> ba tax na eh, yooyu mi ngi fi dëgg la dafa wax ni eh, il arrive qu'une parfaite plaisanterie eh, soit un peu un raisonnement fort l'autre femme mais n'est que parfaite plaisanterie yonne la yoon la django ko jàngul ko waaw parce que itam ci domaine ci domaine Euh. ak yi aju yëpp de lu ci ñaaw amul wanti luñ

dafa dal di jur yàqu-yàqu ah te loolu nag itam euh, farata la di ko waxtaanee farata la di ko waxtaanee ndax bu fekkee ne affaire affaire daara la même daara lu ne dana fa am waaye comme am na wërmbël sutura la sutura la nun amoon nanu ay mag

mu ne mu setané ko sol manto mënu ko sumel manto bi acca ma ko lolou ko koy seetaan ngay sol khaftan ah mu dem seetaani ko ba mu delu se ma ni ko serigne naka mo ma ma ayatun min ayati llahi taala fi raqsi wa tarab waxna deug parce que lolu mayu yalla la amna fekkine fekkin xamni mayu yalla la et puis te du upp te du upp ma ngi amone benn jigen def na xam ngeen ko sa yeen wa ku ñoo wax sira buri ken dakh ko won fecc feccu lawbe le, mais den ka dan invité khamis bu ñew du ñu jang ñu tàcc ko tuuti mu feccel ñu fecc lawbe yu neex parce que dafa ndokh mais du ëpp du ëpp parce que ñoonu yar ñoonu yar ñoom ñoonu yar wax dëgg yàlla ñoonu yar bay waajanu yar doomam eh, ndegam daa xunt laay def ci moom way ah ah dama leen daan way ñooñu sama mbokk law bi daan ñëw yàlla may leen ci aar lu mu mayul kenn dama leen ci daan woy yàlla xam na ko maa ngi jot benn benn diiwaan boo xam ni ndekee xasida yi ma defoon ci jamono yooyu yépp ci laa ko dajale wallaay gis nga loolu lu ko gën a yéeme amul ndekki diiwaan bi ki ma ko dencaloon sama waay jur la woo xam ni dama ko takkoon mooy El Hadji Habib ndeke moo ma ko dencaloon bi moo laata dem nag mu dénkaane pour ñu indil ma diwaan bi ba jox nañu ma ko mais woy bi mu woyoon ñoom daaxuntëg ñoom sira bu réeg ñoom tànt ñilaan cawa yépp nga ci yépp nga ci pour wax la ne aar mook doomu aadama du ñu teqali du ñu teqali ko wante itam li bon mooy ñu bañ ko ormal ñu bañ ko ormal wayat euh, sculpture ak yépp bu ci ne danga koy ormal koy ormal waaw gis que parce que aar dafa am lu mu lay li te bala nga koo xam nga jàng ko ndax fan na boppam la danga koy jàng jàng bu nga xam ni maa ngi am benn wóllëre bu nekk Belgique yàlla dafa dogal miinuma ko woon wante ci ku ko miin laa jaar ñaan ko mu sculpte defal ma façon bu mu mën a benn nappkatu jën ak gaalam ci façon bu ko kenn mësul def yàlla até mu d'accord ci defal ma ko mais bi ñu toogee ba am ñetti weer yónnee si na ma ndaw wax ma ni lu ma soxla mën na ko ko jëndewaat parce que mënatu ko defar te c'est c'est l'art de sa vie te mënatu ko defar kon nag lu ma ko laaj dina ma ko jox mais ma itam looloo tax ma denc ko waaw mënuma ko jox pour wax la ni aar xikaaya la la chaque euh, boo ko dee jàng ci ku mel na badiu zaman il hamadani wala nga di ko jàng ci ku mel ni ah, euh, imam Hariri da ngay xam ni lu ci ne bu fekkee ni ëppul jaddul am na lum la mën a jariñ loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk ba tax na kon nag bu bu vulgarité dikkee rek yàq yépp waaw bu vulgarité dikkee rek yàq yëpp wante bu dikkul nag tabarkalla tabarkalla doomu adama sharafam ëpp na lu nekk wala xat karam na bani aadam waaw yàlla ko teral ba tax na kon

mu ne bu France defatee guerre de ñu gañe ko te boobu deuxième guerre mondiale ñëwagul ñu ni ko lu tax mu ne lii tax nit gañe ger defu ko te allemand yi ñu ngi koy def la mu bindoon exactement noonu la ko yàlla indi bi ger bi ñëwee ñoo jëkk perdre am ko ko laaj ne ni ko waw objectivement li nga wax janon nañu mom mais subjectivement est-ce que yegon nga ni dinañu perdre guerre mu ne ko waw mu ne ko foo yegge ko Paris tollu won na fo xamni ni boulevard jaar

vulgarité su duggee rek àdduna tukki mu duggee rek àdduna tukki te lu ci nekk nag boo toogee ci sa biir kër def ko kenn du la wax dara boo nekkee ak say njaboot def ko kenn du la wax dara waaye su fekkee ni dafa am benn œil magique bu nga xam ni mooy fexe ba loo ca def ci lu vulgaire mu génne ko catastrophe lay doon كاتاستروف لاي دون موتاخ لو متا باي خل تلولو xam nga addabani rabbi fa ahsana taadibi kooku boroom kër bu ne moo la war ci sa njaboot parce que itam fexe ba sa doom lépp lu vulgaire mu bañ ko mën nga ko mën nga ko parce que vulgarité baaxul parce que nit ñi it li ñuy wax dañu naan nangam aram na nangam aram na kooku wax mu tiit kooku wax mu tiit mais bu ko tuddoo aram wax ko vulgarité bi ci ne woon ko ko et puis wàcc nga li ci des na nga bàyyi ko boppam parce que aram aram bés bu ne nit amul nit kuy xëy defu la lu aram amul nit kuy xëy te waxul lu aram amul kooku amul xanaa dangay wax ba noppi yàlla baal la kay. ولا nga def ba nopi yàlla bal la kay way ku xeyta waxul lu aram deful lu aram amul koku amul watan nak mak ñi daan jaxlé ma nga ca falamma qasa qalbi ca shafii falamma qasa qalbi wa daqa madaahibi jaaltu rajaa'i nahwa afika sullama amul benn mag bu yaakaar ni defal na yàlla lu tolloog li ko yàlla defal looloo tax ñu di ko ñaan mu bañ a topp seen doyadi dañu koy ñaan mu bañ a topp seen doyadi ndax ñu mën a mucc parce que ku xëy rekk def nga walla nga wax musiba loolu mooy li nga xam ni moom la pencu yàlla mi laaj te mu jaarale ko ci yonent bi li mu ci war a def yépp mu def ko ci itam muy dox ak tànk di dox ak tànk di dox ak tànk ba dugg si ci néegi ñax yi kenn xamul fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar ba dugg si ci suñu néegi ñax yi nga xam ni yàlla nu yéene ñu bokk ci lëfit boo ca xasee bokk la nga ca man yëpp danga koy def kooku moo gën ndax euh, amoon naa sama benn mag bu baax bu dëkk fii ci Tiwaawan Alaaji Sàmba Ndukumaan Sekk doomu Cheikh Yérim Dumbaan Sekk daf ma nii bayti bi sa papa def ci sa turandoo yaa cheikhana yaa ahmadu tijaani xutubal wujudi wa nicmatal akwaani mu ni ma def jël ciru Maodo jox ko cheikh euh, te jar na nag ñu seetaat ko mu ni ma ndax cheikh ay wujud waaye Sidi El Hadj Malick mooy ni'matul akwaan mu ni ma amul sax werante mu ni ma ndax itam léeg-léeg nga romb néegu ñax bu gàtt ca biir jolof nga dégg fa nasir al xaq bil xaq ma kooku Maodo du cheikh waaye fekk na ñaar yëpp Maodo ñaari yëpp Cheikh waaw ñaari yëpp Maodo yëpp Cheikh te mag ñi itam góorgóorlu nañu ba li ci jaar ci seen loxo liñ ci mën jariñoo jariñoo nañ ko liñ ci mën jariñ njaboot jariñ ci njaboot dem nañu ba di ci jouer théâtre te doo ko yëg mag ñi dañ daan def théâtre ci alquran te doo ko yëg dangaa ree ba tëdd ci suuf te doo yëg mi ci alquran lañ ko jële dañu ko daan def façon bu ñu war a mën a jariñu njaboot rek def nañu ko maa ngi am sama benn doomu ndey Alioune Badara Mbengue def ma daan wax toujours ni ma lu tax mag ñi gën ñu civilisé ma ni ko parce que dañu amoon tàngam ak xolam ma ni ko dañu amoon tàng nekk ñu civilisé dañu amoon xolu nekk ñu civilisé ma ne ko te ñun amuñu tàng ba amuñu xol ba ma ne ko lool rekk la ndax ne ñu góor ga yàlla dafa dogal mu takk aawam euh, taawloo ca tuddi ko benn wëllëreem bu ñu wax Ibrahima Diagne mu takk beneen jabar ñaareel yàlla taaw ba di taaw bu góor mu tudde ko benn xaritam bu ñu wax Moussa Sarr mu takk ñetteel ba tey mu taawlu muy góor mu ni ko nag sama mbokkum bopp mi Demba Jaañ laa ko tudde ndeysaan ñu dem ca jàkk ji di julli góor gi tari ba ci in haadal fi soo fi lule soo fi rekk ñetteel bi ni tey mu dee di la ko jooyal jooy yoo xam ni góor gi yëgu ci dara lu dul bi mu jógee ci jàkk ji ñu ne ko kër gaa ngi tas mu ni waaw lu xew eh, ndaw si ni ko man kay damay jël sama bagage dem yow li nga nekkee wax nga ko ñaanal nga Ibrahima ca jàkk ji ñaanal muusa waaye Demba ñaanaloo ko mu woo Bilal bi mu ñëw mu ni ko loo ci xam mu ni ko ah, yaa ma ci ëpp xam-xam na ndax yaay fanaan ak moom waaw léegi daal yàlla xafurun rahim la li ma ci xam daal mooy nanu wataat julli gi rek isa ko julli gi nag ñu dellu ca jàkk ji waaw lu ko moy rek ndaw saa ngi jooy te ndaw si kat moom rek la góor gi nopp mu dem rek nag jàpp ci yàlla xam ni ne laa xafurun rahim wax dëgg yàlla mu dal nii na hasala fi suufi loolee sufi ibrahima wa musee wa demba ñu ni nañ ko nañ ko ko may rek te jéggal ko ko parce que na li la roo laroorati waaw li la roo laroorati rek tabarkalla tabarkalla waaye dafa mel na ñoom rek Euh, yàlla may na leen li leen war yëpp yëpp yëpp def nañ ko tabarkalla tabarkalla euh, ñaata waxtu trois نحن نحن أولاد التجاني بخامل واو ما أقلي توتي لك ما أقلي توتي نحن أولاد التجاني معنا معنا ويبو غيندي dafa dëgg weewu janaab waaw bu ñu xasee tudd cheikh dañu teg ñëpp ci suuf ndeysaan góor gu baax la moom cheikh nahnu awlaadu tijaani min ubuwaati l maani ولنا منه نصيب فوق غايات الأماني جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني قد دعانا فأجبنا وهو مقباس الزمان بل هدانا فاهتدينا ما له في الفتح ثاني كل من لاقاه يدري أنه روح التداني طاعة في طاقة أو صولة ضد التواني إن ربي قد حباني أن أسمى بالتجاني فأضاء القلب شيء قاده نحو المغاني يا أبا العباس يا من كنزه كنز الأماني جاءنا خير عميم هبة دون امتحان أنت كالغيث إذا ما صب يجري بامتنان ملأ الوديان حتى أصبحت زي الجنان لم يغادر أي شيء من بحور وأواني سلبت عقلي منها زهرات بحناني نفحات الورد شاقت عندليبا بأغاني وبطيب من هواء يزدري مسك الحسان ريحه ريح الخزامى سله عن أهل البيان أعجز الحال رجال الحال في كل اللسان أنعم الله على من ختمه جد التهاني هل يرى الإكسير منه غير ذي ختم وشان جده الفرد طبيب النفس مرآة الجنان صل يا رب عليه وعلى أهل التفاني آله الغر مع الأصحاب قاموا للطعان في سبيل الله حتى qaddasu kulla makan gis nga li ñu doon wax ci aar xam nga am na benn picc bu ma ci tudd léegi bu ñu wax àndali ba wax nañ ni moo jur mën na am sax mën na am sax légende la wante wax nañ ni moo jur musique, Andalib. libre... naa mom le tout tubaab yi tuddee rossignol amul Ah. wax nañ ni ci mom le ñu Musique... musique ouais légende là. Euh, pour wax la fenn rekk mbiram dafa mel na kilifa yi gëna a màgg amul woon ku ci amul orchestre ndax di ko dalale ay sidditam jëkk mu jëm ci jaamu boroomam surtout sama turandoo moom daawu ko foye euh, am na bés xale yi amee orchestre bi am ci kenn ku daw dem ci benn invitation buñ ko invité mais naka la tëgg rekk fekk mi ngi wéeru ci foofu mu daan wéeru ci jàkk ji mais dañu tëgg rekk mu yëg ni am na ku manqué te foogu ñu woon mukk ni dana ko xam ca la waxee ni wa ay na duf ne ana ki amee ndënd ma faf nag ba demee Tuunus ba demee Jazaayir foo dem ñu naan wa ay na dëf waaw ndax sopp Cheikh rek bu junne ku bëgg tooñ sa moroom ni waaye na dëf wallaay ndeysaan dañu ko soppoon ba xamatuñu lu ñuy def tabarkalla tabarkalla eh waaye ñoom dañu koy jariñoo waaw dañu koy jariñoo nag dañu koy jariñoo maa ngi koy wax Euh, président Abdou Diouf bi muy laata dem ma ni ko gis nga dund bu amul valeur ma ni ko jaru ko waaw ma ni ko dund bu amul valeur jaru ko moo tax war ngeen a taxaw lu ngeen mën ci réew mi pour jox ko valeur bi euh, bi mu laaj dañ ko parce que bu amul rek àdduna tukki bu amul àdduna tukki parce que kenn ku ne bàyyi sa bopp noonu rek kese kese amatuloo benn valeur kenn du ko def kenn du ko def moo tax ku yërif réew la nga war a jëkk a def mooy fexe ba réew ma am valeur bu ñépp di tudd su amul rekk àdduna tukki yombul nag na nit ñit kenn ku ne ak fa nga jëm waaye bu ci ñëpp taxawee mën na nekk bu ci ñëpp taxawee rek mën na ne parce que valeur bu ko réew amul nit amatu ko jaratu ko loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk